salaamaaleykum internet Dakar Buzz. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar seen émission mag bii di samp ndënd tey seet si waat nag sunu xarit sunu doomu ndey di grand champion nag di euh, Lac de waaye lii ma jot a gis mu daj ko ci saal bi mbër mu jël avance su Lac de te waxtaan ak say bokk loolu sax du ma ci commenté damay bàyyi ngeen xoolal seen bokk ñu ngi fi daal ma war a ànd ak moom tey ci musculation Seydou topp moom ma xool. fay jar na ko wallaay ko fay jar na ko. man sama xel nekkoon na sax ci ut amas laal benn laal benn combat mais lii ma gis daal xam naa ne naa yem ci wax rek. ah du ma ne la déedéet mais en tout cas daal waaw yemal foofu. waaw yem ci wax rek waaw yemal ci wax rek. <laughs> ça fait ñaari quatre vingt la xam nga ñaari quatre vingt ak quatre vingt fële day nekk euh, cent soixante ak cinquante mu nekk deux cent dix c'est boole wuñ si lii c'est mu ngi si deuxième répétition deux cent dix kilos moo tax souvent des fois nga dégg sa nit taxaw naan la maanaam yëkkati naa ay ay quatre cent kilos affaire yooyu fekk li mu yëkkati du pois li ay olympique la lii ku gis euh, poids yi nii da ngay xam ne du poids ay pound comme ni ñu koy waxee yii ay poids dafa diis yii vingt kilos normal la waaw ay ay olympique la quoi waaw fu mu nekk ni souvent am na ñoo xamante ne mën nañu charger lu mel nii nga jël leen mais ba tey poids yi du ñu dox waaw du ñu nekk benn quoi loolu ñu xam musculation bu ñu gisee dinañu xam ne li ma wax ni moo nekk quoi waaw déjà mu ngi si presque deux cent dix kilo deuxième répétition am waaw ah, mais xam naa dañ leen di may ba trois cent rek pour tey parce que nit tamit lu muy def lépp du lépp la ñuy wane tamit quoi waaw il ñu ñamal leen tuuti rek quoi. man kay damay ragal pour pour mu naroon a jël avance am ko. li mu la wax mooy sànq xam nga waaw échauffement bi. waaw waaw saa sama waay ba loolu daw ci dara may sama gaañ. Uh-huh. ko wax nangu mukk koo xam ne dina wane loo xamante ne tey dina xam ne mbër mi lii lay liggéey. man souvent sama entraînement dama koy nëbb mais Fadel dafa bokk ci man moo tax il faut ma il faut may ko lii xamalax mu nekk loo xamante ne waaw moom rek koy am daal keneen ku fi mën di ñëwaat na dama lay mosor rek waaw mais lii moom Fadel rek moom moo ko am waaw ak sama doom nday Medoune juuf xam nga Medoune moom yàgg na maa topp du mais Medoune moom moom yàgg na maa topp trop. daa mel ne lii dama ak yow donc am ah que jël temps bii nu jël sunu temps tey ànd papis ak coacham bi lii yaakaar naa ne du ñëpp ko mën a am de impro Dakar ba donc ko mën a am ah mais doon réew mi daal ku baax bàyyi na la xel yàlla yàlla fa la cat papis nga ne nga ne tey lii dafa mel ne bariwuloo ko def de non lii souvent man du ma faral di wane samay entraînement yëpp waaw boo gisee ma def ko dafa am footoo la ci man waaw nga nekk sama nit nekk sama waay ma ne naa la mosal lii samay entraînement duggal nga xool lépp lu may def dama koy xaaj ci digg mais ak yow il moom mosal loo xamante ne soxal dina seet daal waaw yow sama gaañan nga sama waay nga te Médoune yàgg na maa topp kon Médoune bu ñëwee tey war naa kaa jox loo xamante ne maanaam benn la fiy doon waaw sama waay sama xarit borom baax la. waaw yow samedi dimanche. waa gis nga. tumburoog soow la rek. dañ ci boole Médoune rek muy samedi dimanche. boo ko boole mi weekend. waaye tey dafa jàpp sama caméra ci gàllaaj nag tey. <laughs> Papis nga ne sonn nga. sonn naa mu ne mbër bëgg am dara day ñefe. ne liggéey. mais lii est-ce que pour que mbër yi day gis est-ce que sama jël ko dana yomb. moo tax comme ñëpp dañuy wër ba daan ma dem liggéey. Euh, yéen a ko déggandoo maag Papis la tey la déggee de fii ci salle bi muy lu doy waar loo xam ne gis ngeen li muy liggéey en tout cas daal euh, mbër mu mbër mu pare ba nu jox la Papis na nga xam ne at nga adversaire boo xam ni ah ku ñëlaw du ko daan de. xam naa nag mbëri ñelawuñu mais nañ ko bàyyi xel xam naa li muy daj la ñeneen ñi daj waaye daal kuy ñelaw di ko daal tey maag moom fii amee internet ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm euh, rawatina euh, di sàkku ngeen ñaanal ñu ko rawatina nag amee internetu Dakar Buzz ak Impro Medoune Diouf tey seen émission samp ndënd nag tey seet si euh, sunu xarit sunu doomu ndey Papis la déggee de war a waxtaan ak moom nag ci fi làmb toll Papis ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fa Fadel du nuyu képp koo xaman amateur làmb nga di nuyu la déggee numéro 2 yëpp ak fépp foo mënta nekk ci àdduna bi. maa ngi ziar ñëpp du nuyu sama doom nday xaadim Sanku depuis Paris sama ñaari seex yooyu di nuyu Bintu ak seen yaay ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee bu baax a baax waaw. tey fii ñu la fekk ngay daj coono yi métti yi mel ne ku lekk avance mbër sax lekk na avance te dajul coono yi lu waral loolu. waa xam nga lépp loo gis waaj daf cee baax waajal balaa dara di la berte parce que souvent damay dégg sama papa yi naan man na xam yaa ngi ci kawam. yaa ngi dégg sama gars yi sama xarit ñëpp naa ma yaa ngi ci kon donc lépp loo gis rek prépare waaj ko dafa baax moo tax ma koy waaj bu baax a baax ndax bëgguma dara lu ma bert dañuy daal di sóobu ci waxtaan yu juuf parce que euh, li rëcc ci dëkk bi mooy diggante euh, Gris ak Balla Gaye yàlla def na dégg ngeen la ci am Gris Bordeaux nee na bëggutul combat boobu delloo namas bi kon dafa mel ni sa diggante Gris Bordeaux mi ngi xeeñ. waaw xam nga combat bu neex yàqu naa parce que diggante Balla Gris Bordeaux clarification la woon yaa ngi dégg tey yàlla def na ne combat bu Gris Bordeaux neen du bëree Gaston du ko bëreel kon donc loolu kenn mënu ci moom moo xam la moo tax mu jël choix boobu noonu yaa ngi dégg mais combat bu neex la woon doon ci ñaanal Balla Gaye yàlla may ko ci ndam bu fekkoon combat boobu taxaw na comme yàlla def na ne combat boobu dem na ba yàqu Gris neen du bëre ñun ñoo ngi suñu ruq di entraîné di waaj bu baax a baax bëgguñu dara bettuñu muy Gris Bordeaux ak keneen keneen lañu yemale ah ku mënta ñëw rek dinañ bëre ak yow incha allah di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam sa kaw waaw. mu mel yi doon di ko bëgg mooy commencé am mooy combat jànq loolu loolu la ñuy waxtaanee parce que ku xam ne diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye la fi amoon Balla Gaye daan Balla Gaye daanoon ko ñu indiwaat ko sotti nag sotteegul mais yàqu la gën a jege mu mel ne combat daal la amateur yi gën a ndax pare nga tey pour loolu. waaw xam nga man combat jànq moom gënoon lu nekk parce que booy xool fan yii passé wax naa ko ci benn émission di nuyuwaale suñu Pape Lamine Samba wax naa ko ci émission am nit bu duggee Fass daan fa ñeenti nit yaa ngi dee yow nga dugg biir écurie Waalo daan fa kenn Abdou Diouf sama grand maa ngi koy nuyu en passage moom mu daan la nga daan la dëgër kon moo ci war a wër mën a moom moom moo ma war a wër moom benn rek daan sama écurie moo koy wër ci dëkk bi. mën nga maa ñëwal ci ñi nga daan foofu. daan naa fa Papa daan naa fa Batika daan naa fa Babacar bu Faas daan naa fa suñ papa Moustapha Gueye waaw mais euh, Babacar bu Fass maa ngi koy nuyu en passage ah mu nekk nit ku baax boobu moo nekkoon sama combat bu métti ci biir Fass waaw contre Babacar Babacar bu Fass combat bu métti la woon sama diggante ak moom waaw maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla fa mu ne gëj a gis maa ngi moom ah. waaw fu mu nekk daal yàlla na ko fa yàlla yokk Babacar bu Fass di ko ziar baax a baax a baax di ko wax ne mu ngi sama xel daal. mu mel ne tey jii li may wax rek euh, amaa su Gris doo tey bu dikkoon nga fanaanoo ko loolu wax gu yàqu la ba ñu ko joxoon léegi léegi léegi léegi nii ma génne ci li ma ciy war a génnee dimbali ci ñi nga xamante ne tey seen loxo jotul ginnaaw ci des ma jox la ci préparer Gris Bordeaux te loolu daa mel ne ay lu faa ngi kenn du ko jeex de ah bu dikkee ma jox la li mu la ci jox ay waaye combat bi yàlla na taxaw ndax ko jox ma ci ah?